Serigne Modou Bousso président de la confédération internationale des familles religieuses comme coordonnateur benn SIFA. Je disais que Magal il a plusieurs sens un sens principal et d'autres sens peut-être secondaires mais sens principal bi mooy jaamu yàlla bu yàlla may lu bari wala lépp mu ko sant lépp xool lu bari yëpp mën nañ ko mais mu am. yéene ngir euh, sant yàlla par une action de grâce action boobu nag mu ne c'est obligatoire parce que xat euh, xultu daa taxaddusan li niami li ann daa chartum bi shukuril munami mu ne euh, li muy def nii def na ko pour exprimer une action de grace parce que expression boobu c'est une condition pour nga sant ki la xéewal ça veut dire nga sant yàlla kon naturellement il fallait que mu mu mu sant yàlla de cette façon de cette manière comme nag cant gi moom dafa am jaboot te cant gi dafa rëy mu ne képp koo xam ne si mbégteem partagé nga ko te doon se mbégte na ko sant yàlla ci bis boobu mu nekk su bari sens boo xam ne sax wax ne yàlla bu ëllëgee ba notion du temps jeex ba ay àdduna euh, yëpp jeex bu bis bi seetee yàlla na renforcer xéwalam ci ak ci euh, waa waa aljanna bu xam ne bu Sëriñ Tuubaa baa ngi kon daal sens principal bi c'est une action de grâce ci ko xam ne si dafa nekkoon ci ay coono ci koo xam ne dafa daf doon jaayanteeg boromam ba yàlla may ko ci loo xam ne si euh, kenn am ndax sëñ Mouhamed Lamine Bara seetaan naa mu ne nee na da doon dem ba ci saag sëriñ bi bi mu leen tàggoo woon leen ginnaaw dem na ba ci mu taxaw bi taxaw bi yàgg na lool soog dem bi mu nee ba na est-ce que remarqué woon nañ dara ci muy dem sëñ Maodo Fall sëñ Maodo Fall ak sëñ ko li remarqué mooy bi ngay dem bi nga doxee taxaw nga daal diir bu xaw a yàgg tuuti te diir boobu après da ngaa taxaw lu yàgg yàggoom yàgg nga dem. mu leen waa koy daan leen ndaxte boobu dama dem bi may dem suñu doon daf ma laaj lan laa bëgg ma ne ko lépp lépp nag ci la ko yeex a tontu moo tax ma doon xaar nee na ba mu ko ne may na ko lépp ba mu xam ne am na lépp nee ku may lépp nag bien naturellement eh, foog nga gërëm yàlla gërëm bu mag a mag mag gërëm bu am avergure bi te avergure dana yokk di yokk di mu nekk aussi euh, bis boo xam ne bisu dem la du bisu del si nag c'est très important mu nekk bisu bisu jënguti au lieu li mu mu feetal sant yàlla ci bi mu amee ndam bi mu delsee mais mu gërëm yàlla ci bi wuti ndam li parce que avant muy dem amoon na ndam li ba pare ndam li du ci yoon bi la ko amee mais assuré woon na ko nekkul woon lu mu doon loo xam dafa doon tànte lu mu lu mu disposé woon la ba pare ak contrat la bu mu am ba pare soog ko dem wuti comme li seen baan Bakary la wax nañ Sëriñ Tuubaa li ngeen di gis mu koy ñaan yëp yàlla may na ko ba noppi ci ay teggi na mu soog ko ñaan waaye moom avant muy dem nee na wasala lii mi mën lawul umuuru sirrum bi faraxanil amir yàlla mi yor euh, mbir yi jox na ma secret boo xam ne dina ma débarrasser ci amir moom mooy gouverneur kon woon problème problème boobu convocation gouverneur euh, waxoon na it ne ci bis bi ministre de la communication ci tàkkusaan boobu julli na tàkkusaan ba pare ba bind xasida bu ne xamituma yazimu nii mina dora min kulli cheytaan bu jinnu bachar gërëm na yàlla mi nga xam ne xamal na ko ne ko mettre na ko à l'abri ci bépp lor wala bépp action bu jóge ci nit wala ci cheytaan wala ci jinne kon ñett ñoom yàlla mettre na ko euh, ci ñoom à l'abri tel que ñoom seen lor du ko atteindre ñoom ñoo ñoo ñoo composé àdduna mu ngi génne cheytaane moo ci intervenir pour jaxase bu ko yàlla neutraliser maanaam man trois kon xamoon na ne amatul problème ba ca mujj nag mooy wa jaxalal muxtaara sallallahu alayhi wa alihi wa walaahu lahu xijaaba maania min ad-dar summa lahu xaalam ci la tax sutara boobu ñu boo nee aussi nga wa jaxalal muxtaar mu mel ne faa'il wala mafuul bu mu ci doon rek en tout cas nee na yàlla ci barkeel bi sallallahu alayhi wa sallam def na yonent bi mu nekk lahu xijaaba maania min ad-dar mu nekk benn protection boo xam ne si dara mënu ko percer ci lor pour arrêter ko moom te nee na yamu ci mais summa lahu kooku wax nañ ko ne. way bi moo tax mu jël keneen utiliser ko boppam mais boppam lay wax mu ne su ma xaalam su dara aussi wax nañ ko ne ko allez marché bu ragal lor kon sëriñ bi avait toute sorte de protection avant muy génn xamoon na ne aussi c'était ça va être euh, une mission difficile facile parce que quelles que soient les difficultés daf koy daf koy daf koy jàll loolu wéroon na moo tax mu préféré màggal génn gi sans mu màggal léegi au-delà de l'aspect religieux est-ce que économiquement parlant est-ce que Touba vit euh, du Magal parce que dañu gisee Touba bu ñu xoolee fi du si milliards Touba boo xoolee euh, la situation de Touba c'est un lan moo waral waral loolu exactement. bon parce que Touba a plusieurs aspects moi je parle de l'aspect religieux bi tax ñu naan Touba parce que en réalité borom Touba mi ngi sañ Touba moom c'était pas jël woon considération ci benn aspect aspect religieux. daara Ikhlaas la wax ñu ba daaw ko tuddee ville daaw ko tuddee dëkk mais dafa doon tuddee kër moom këram la woon këram la ko defoon kër bi particulièrement et uniquement exclusivement pour jaamu yàlla pas autre chose mais fu ñu nekk nag di nga wax économie wax développement wax leneen bi nit ñi baree ba toll ci ay millions nag loolu il faut qu'il y ait administration c'est l'administration il faut qu'il aussi l'État c'est eux qui organisent un développement une organisation cité bi nu muy demee naka lay rafetee naka la ñuy amee yoon nu ñuy amee assainissement yooyu yëpp c'est vrai que c'est défaillant parce que la mairie mobilise autant de milliards mais il n'a fait elle n'a fait absolument rien ça c'est clair li fi nekk sëñ bi ko de état aussi dëgg naa président nee na il a beaucoup fait à Touba a fait onze milliards je sais quoi je suis désolé que euh, budget Sénégal a atteint aujourd'hui trois mille sept cent neuf milliards trois mille quatre cent passé trois mille bële euh, le président am na plus de quinze mille milliards ou dix sept mille milliards ci moins de six ans su fekkee ne dañ naan Touba onze milliards dañ fa def te Touba contenir presque euh, cinq cinquième hmm, ci population sénégalaise bi c'est c'est vraiment désolant boo xoolee onze milliards sur treize dix sept mille milliards lan la ci doon ci bu doon joxe pourcentage dëgg dëgg dëgg dëgg te nga dafa ne liggéey naa fii loolu nag kooku mënuma koy tuddee léegi daal comme ni ñu comme yow li nga bëgg wax par exemple euh, l'état a failli à particulièrement l'état mm. c'est tout un ensemble défaillant je dis la mairie cest à l'administration locale mm. gën a parce que bu ñu wax développement ville mairie bi la parce que mairie bi c'est un de l'état mais géré par une autorité locale mais cette autorité ne fait absolument rien def fi tos leer na gis nga Touba mën na yàq na ko lépp yàq na ko année milliards yi ñu fiy dugg ànd ak 4 milliards yi ñu état di alloué fonctionnement 4 milliards fonctionnement ci mairie as mairie c'est grave ça li fi des li fi nekk sëñ bi ko fi moom Touba moo ko jël li des mais mairie moom du fi dara kon on active d'abord la mairie avant d'arriver à l'état nag moo ëmb mairie état aussi j'ai donné l'explication que président si 17 000 milliards il a parlé de 11 milliards après na daanaka sax nag léegi quelle est la solution au-delà de l'aspect de la mais solution bi am ba ñu war a def Paris war def New York Las Vegas moo valable Touba en terme de développement en terme d'économie soo dugalee économie développement moom particularité amatul spécialité amatul benn réalité mooy am mais soo indee diine nag mu nekk spécial parce que yàlla dafa def Sëñ Touba mu spécial. nee na moom dafa spécial nee yàlla moo ko def mu spécial nee yàlla moo ko wutale ak le reste nee yàlla moo ko apprécier différemment ak ñi des yàlla moo ko évaluer différemment ak ñi des nee na nee na yàlla defal na ko naw nekk bi xaw ay nelawam day wecci taxawaayu góor yàlla yépp boo leen boole nee na dogam fitri foofu kulli saw nee dog gi muy dog moom amul benn boobalee koor yëpp dogam moo leen ëpp doole c'est Allah qui l'a fait ainsi parce que nee na loolu bu mu leen yéen parce que suñu borom bu ko neexee def lu ko soob def te maa ko soob il faut qu'il y ait spécial spécialité daal daal dugg mais nag soo écarté loolu nga xam ne si si si si c'est religieux c'est divin noo ko bëgg tuddee nga indi nag aspect ay économique social développement ce qui est valable ailleurs seul qui est valable ici sa ji ñu xam naa bu ñu xam na si benn si problème ouvert d'esprit tey jii en matière de politique quelle est la solution pour que lu ñu wax solution sax mais Touba en matière de politique lan moo waral moo lan mooy mën a waral nguur par exemple mu gagné ko parce que gis nañ Macky Sall politique yi élection yi quelle est la solution su jëm si présidentielle difficile difficile c'est un problème complexe problème beaucoup plus peut-être euh, profond hein, que ni ñu koy apprécier parce que <laughs> tout a y passer c'est un combat entre Wade et Macky tant que Macky murid yi defuñu ko mbokkum taalib yi day jafe loolu amagul dafa am yu sew yoo xam ne da koy gis ci seen réseaux sociaux yi ñoom ñu ci bàyyi xel année bi parce que def Macky Sall otom ba ci biir jumaa ji ko mu lool taw na bi yoon defu d'accord te góor di jàngale ci biti mais yaa xool mi ngi sol ay dàll ñu teg ay dàll toj si suñu tool mi ànd solul dàll sa yooyu dafa tuuti mais dafa rëy ci moom bi am solo waaw lu topp mooy c'est un combat local ces responsables locaux sont extrêmement médiocres kenn xamu leen donc finalement Abdoulaye Wade qui s'impose en tant que mbokk taalibe bi soo a di ñëwee rek moom gis ni baxanaam rek sukk ci suuf rek Macky dañ koy fàtte. parce que moom nuyu na mi ngi toog ci kaw et puis Macky des na benn fougue intérieur boo xam ne il se sent toujours chef d' état c' est normal c' est lui le chef d' état mais ni mu koy yëg parce que en tant que xale wala en tant que âge bu toll fi mu ak ni ko war di apprécier du benn moom ni mu koy yëgee noonu Touba dañ ci gis seen bopp ci neneen doxalin bi day de problème mais aussi Macky Sall visite Touba une seule fois par année màggal à part ses condoléances bon condoléances nag Wade visitait Touba quatre ou cinq fois par année. Diouf la faisait de manière régulière chaque trois mois. Senghor le faisait chaque trois mois régulière. Durant 40 ans, il Diouf, il Senghor. Yep. Ça sa été comme ça. Mais avec Wad Maki, une seule fois par an, à part situation exceptionnelle. Touba, Hamilou. Hamilou, c'est-à-dire sa c'est que je fais des manque de communication, il est tard, il dit, réro. Moi, pour moi, je fais ça, ça, il est bañ bañuñu ko nag bañuñu ko mel ni ko xamul